daa am ay ay julli sunna yoo xam ne boo weesoo farata yi ñoo ci sës ñoo gën a màgg ci julli yi yooyu nag ñeent lañ wetara mooy julli sunna gën a dëgër ci mboolem julli sunna yi al witru tóol lay firi tey benn ràkk rek moo tax ñu koy tudde al witru nee na nag boo jullee gee ba sëlmal te fekk ba ngay julli gee nga waxtoom jotoon na bu ko fekkee nga boole woon timis te waxtoom jotagut saa yoo jullee gee rek te fekk waxtoom jot booba dal ngay dugg ci muxtaarum wetar mooy waxtu wañ taamu nga julli ci wetar daal nay tàmbale nee na moom benn ràkk la boo xam ne taamuñ nga jekki-jekki def ko moom dong rek dañoo bëgg bala nga koo def nga jiital ñaari ràkka yoo xam ne moo tudd achafu achafu mooy tóllan muy tóllanti ko te ñaar ràkk ñi da nga cay taayi sëlmal door andi nag benn ràkk bi ñu wetar waaye bëgguñu sax nga jokkale leen bu dee ci yoon Maalik duñ tàmmu ku leen jokkale neen nag bu fekkee da ngaa bëgg a def rek ñaar ràkk kese teg ci wetar ñu bëgg kon ñaar ràkk ña tudd safa ràkk bu njëkk ba nga jàng ci fatiha teg ci sabbi isma rabbikal a'la ràkk ñaareel ba nga jàng fatiha teg ci xul yaa ayyuhal kaafiruun bu ko defee nag boo ñëwee ci benn ràkk wetar bi nag moom saa yoo koy def rek nga jàng ca gannaaw fatiha qul huwallahu ahad ak falaq ak naas nee na bu fekkee jot laa wetar benn nga fàtte ko mbaa nga far biddanti nga yeewu nag tam naaj nga xam ne boo xoolee si diggante jant bi fenk benn ràkk moo fa xaj mbaa ñaar kon loolu dañ koy faral moomale suba mi farata dañuy boole lépp bu dee benn ràkka bu dee ñaar moomale ko suba mi farata nga julli suba te xam ne weta raw na la ca booba bis ndegam naaj ngaa yeewu wala nga fàtte ko ba sa digganteeg jant bi fenk benn ràkka fa xaj mbaa ñaar loolu kon dañ koy moomale julli suba mi farata bu ko defee nag wetar raw na la ca googu guddi moom jeex na ñaaraakay fajar yi nag moom jant bi fenkee ba yëkkati ku ñetti meetar ba keroog tisbaar mën nga ko faa fay nee na bu fekkee fa nga yeewoo ak sa digganteeg jant bi fenk mënees na faa julli ñett rakka mbaa ñeent kon da ngay julli benn muy wetar daal di gaaw julli suba rek bu dee ñett yee moom da cee yem képp bu dee ñeent yee it baax na say boo rek julli wetar teg ca suba rek su fekkee fa nga yeewoo sa digganteeg jant bi fenk mënees na faa julli juróomi rakka kon nga julli safaa muy ñaar nga teg ci wetar muy benn muy ñett nga teg ci suba nag muy juróom mu yem ci képp nga bàyyi fajar nag bu jant bi fenkee ba yëkkati ku ñetti meetar diggante mu tisbaar nga daal di koy mën a fay su fekkoon ne fa nga yeewoo ak sa diggante jant bi fenk juróom ñaar rakk xañ na fa kon moom ñoom ñëpp ay dugg nga njëkk a julli safaa muy ñaar nga teg ci wetar benn dong la bu ànd ak safaa muy ñett nga teg ñaar rakkay fajar bu ànd ak ñett yeewu mu juróom nga teg ñaar rakkay suba nag mu daal doon juróom ñaar julli ñaareel gi ci julli sunna yi mooy julli korite tabaski moom nag bu fekkee kooka jumaata koo war kooka la ñuy wax ne julli ki it sunna la ci moom su feetli ko su dëgër dëgër waaye bu fekkee ne kooka julli jumaa waru ko niki day ab jaam wala muy jigéen wala muy kuy tukki kon dañuy sopp ci ñoom rek julli korite tabaski waaye du àgg ci sunna dëgg-dëgg muy korite muy tabaski ak julli yam ñaar ràkk dong la te amul nodd amul li xaam ndax nodd li xaam moom julli farataa ko war a am boo julli korite ba tabaski bu dee ràkk bu njëkk ba da ngay wax allahu akbar muy armal ba noppi nag nga teg ci yeneen juróom benn mu daal doon juróom ñaar bu dee ràkk ñaareel ba moom boo yëkkatikoo ci ràkk bu njëkk bi booy jóg da nga wax allahu akbar gannaaw boobu dana ci tegaat yeneen juróom nag xam ne kon boo boolee rakkaam yépp kon juróom benn lay doon nee na allahu akbar bi ngay njëkk wax rek lañuy sopp nga yëkkat say loxo waaye mboolem allahu akbar yi ci desaat dañoo taamu rek nga wax ci sa làmmiñ allahu akbar te bañ a yëkkati say loxo nee na bu fekkee da ngaa fàtte benn kàbbar mbaa lu ko ëpp li nga jotagu laa sëgg jàpp ci say wóom rek da ngay daal delluwaat def kàbbar yi nga xam ne ñoom nga fàtte woon maanaam soo defee kàbbar ya ba noppi dañuy bëgg nga baamuwaat njàng ma léegi nag kàbbar yi nga fàtte woon gaaw koo fàttaliku te fekk na léegi sëgg góor ko gannaaw boo defee kàbbar ya yoo bëgg nga baamu la nga jàngoon danga baamu nga la nga jàngoon nag kon daañu la digal nga sujjóot ba xam salaam ba tey noo xam ne boo ñëwee di julli si korite mbaa tabaski fekk ilimaan raw la kàbbar ba àggal ba tàmbalee jàng kon boo waxee allahu akbar muy sab tàmbali da nga cay tegaat juróom benn muy juróom ñaar la door a tàmbali déglu nag am njàngam su fekkee da ngaa dikk nag fekk mu am kàbbar yum kàbbar waaye kàbbar yi jeexagut da ngay wàññi la nga ànd ak moom ci limub kàbbar su ko su àggalee ay kàbbaram nag moom xam nga day daal tàmbalee jàng am njàngam yow nag nga daal di àggale say kàbbar nag door koo déglu ci njàng ma allahu akbar yi ñuy wax nag ci jullit korite mbaa tabaski nag dañ koo fonk lool benn bu ci nekk sunna su fedd lépp la nga xam ne su ci xasee bàyyi benn pëxës jàpp ci ay woomam jeex na du ko mën a defati waaye da koy sujootal xabla salaam bu dee ilimaan day sujoot xabla salaam maamum yi ànd ak moom bu fekkee ne nag maamum rek moo fàtte kàbbar ya kon ilimaan dana ko gàdduwaale du aajowoo moom moom maamum mi muy sujoot xabla salaam ndax bàyyi gam bàyyi kàbbar yooyee sopp nañ nag kàbbar yi ngay kàbbar nga di ko wax ci kaw dañ ko wax ci suuf nu bañ a fàtte ne sopp nañu boo dee julli ji korite mbaa tabaski nga yëkkati sa kàddu di wax allahu akbar ca kaw boo àggee ca jullikaay ba itam te ilimaan ñëwagut nga wéy ca kàbbar yooyee bu ilimaan ñëwee itam te tàmbaleegul julli ga ba tey rek nga wéy ca kàbbar ya buñ tàmbalee julli gi nag ñu door a bàyyi kàbbar yi te it bu ilimaan nekkee ca xutba ba bañ dégg ñu wax allahu akbar it daañu sopp ñoom maamum itam ñuy wax allahu akbar sopp nañ korite tabaski nga xeeñoo xet gu neex waaje yéer yu rafet te moom lu gën a rafet rek moo gën bu doon ci ajjuma moom lu gën a weex mooy gën waaye bu fekkee ne moom day korite mbaa tabaski lu gën a rafet rek la ñuy gën a taamu bëgguñu sax nga gannaawal àdduna ba bi ci korite mbaa tabaski nga bañ caa waaj daal di sol rek yére yi nga daan sol déedéet loolu tàmmuñ ko loolu bi daal nee nañu muy korite muy tabaski sopp nañ yoon wa nga awoon ba ngay julli ji booy wàññi ko aw ci weneen maanaam taamu nañ biñ ne tey la korite moom bala ngaa xëy jëm ci jullikaay ba nga mos dara soo ko mënee def ay tàndarma yu tóol mooy ci gën bu fekkee amoo ay tàndarma nag nga guux ay ndox rek mbaa nga mos dara daal bala ngaa dem julli ji korite ndax ñu xam ne ndax loolu mooy tegtale ne bañ la diggalee woor woor nga bi la diggalee wori wori nga loolu nag safaanoo nag bu dee bisu tabaski boo xëyee dañoo sopp nga bañ a lekk bañ a naan mel ne ku woor rek ba julli ji ba ñëw ba ñu rendi xar ma nga doge ca res wa nag loolu taam lañ ko sopp nañu nga sàmmonte kàbbar yi ñu def ci bisi mi na nii loolu mooy bu ñu nee tey la bisu tabaski bi ba julee tisbaar nga def kàbbar yi julli farata goo defati rek wala ngaa tasab daal di gaaw def kàbbar yi da ngay tàmbalee wàññi nag bu ñu nee tey tabaski dañ ne tey jii nga xam ne mooy dibéer bu doon moom da nga ci tàmbalee wàññi teg ci altine talaata àllarba àllarba mooy doon bisub ñeenteel ba àllarba jooju nag ba jullee suba ba def kàbbar yi foofu nga koy bàyyee doo ko defati ba déwénati nii lañ koy defee allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu daan ràññeel nag ne boo waxee rek allahu akbar ñetti yoon mu baax allahu akbar allahu akbar rek daal lay baax ni mu indee itam def allahu akbar ñetti yoon door wax laa ilaaha illallaah bokkut ak ba risaala indi woon risaala dana woon moom da ngay wax allahu akbar allahu akbar muy ñaar nga daal di ne laa ilaaha illallaah nga del baamuwaat ñaari allahu akbar yi te boolewaale ci waaw ne wallahu akbaru allahu akbaru ni mu ko defee walillaahi alhamdu noonu la risaala indee woon moom nee na julli muuru jant sunna la te ñëpp maase na ci moom nag mépp mu kàllaf man doon rek muy góor muy jigéen daañu bëgg su jant bi muuroo mu dem def ko sopp nañu julli muuru jant ñu defe ko ci jàkka ja te itam julli ko julli mbooloo bañ koo kenn kennoo loolu lañ ci gën a taamu waxtu wa naafila dagane mooy bu jant bi fenkee ba yëkkatiku ñetti meetar ci xoolu bët la naafila tàmbalee dagan dafa dale nag ba tisbaar bu fi jant bi muuroo sunna la ñu julli julli googu waaye bu fekkee ba muy fenk la daal di muuru te fenk bi sotteegut xam nga jant bu tàmbalee fenk te lépp génn gut naafila day araam kon bu tàmbalee fenk daal di muuru naafila day araam bu fenkee ba noppi daal di muuru fa saasa te yëkkati koogul lu ma ñetti meetar ba tey ñu sib ku julli julli muuru jant yooyu jamono ndax yooyu jamono dañoo sib naafila moo tax gannaaw ci baar itam wax jëkk na wóor mooy bu jant bi muuroo ba tey kenn du julli ndax dañ koy jàpp waxtoom rek mi ngi tàmbalee ci waxtu wa naafila dagan ba tisbaar jot ba tisbaar xasee jot rek waxtoom jeex na gannaaw ba su muuroo itam kenn du julli jooju wax daal moo gën a wóor nee na moom nag ñaar ràkk rek lay doon ràkk bu ne nag day am ñaari taxawaay ak ñaari rukkoo waaye nag moom kenn du ko noddal kenn du ko li xaamal ndax noddal li xaam moom julli farata moo koy am xam nga ràkk bu nekk day am ñaari taxawaay ak ñaari rukkoo soo kàbbaree da ngay jàng fatiha ñu sopp nga teg ci saaru baqara wu guddoo nga xam jege na juróom isib su saaru baqara jeexee nga daal di sëgg rukkoo te yàgg ci rukkoo ba loolu ba mel ni ba ngay jàng saaru baqara boo siggee nag ba wax sami xallaaw liman xamida nga tàmbaliwaat njàng mu yees daal jàngaat fatiha boo noppee ci fatiha itam teg ci suuratu ali imran bu ali imran jeexee nag nga daal di rukkoo te rukkoo ba itam nga yàgg ca ba mel ne bi ngay jàng saaru ali imran ci bi yàggaay boo siggee ci rukkoo ba nga daal di wax samiha allahu liman hamida daal di jàll nag sujjóot te booy sujjóot nga yàggal sujjóot ya ni nga yàggale woon rukkoob ñaareel bee nga weesu woon boobaa nag am nga benn rakka xam nga léegi boo amee benn rakka ba siggi ba taxaw da ngay daal jàng faatiha ñu sopp nga jàngati saar wu gudd tey boo def ko sóoratu nisaa yi bu sóoratu nisaa yi jeexee nga jàpp ci say woom te yàgg ca rukkoo ba mel ne bi nga jàng sóoratu nisaa yi boo siggee ca rukkoo ba nag nga wax samiha allahu liman hamida te tàmbaliwaat nag njàng mu yees ndax da ngay bëgg a def taxawaayu ñaareel bi ci rakkam ñaareel bi da ngay daal jàngaat faatiha jàngaat saar wu gudd te say boo teg ci kon sóoratul maayida ci misas ci nisaa nga xam ne bu Faatiha ak suuratul Maa'ida jeexee nag nga daal di sëgru ko te yàgg ci rukkoo mel ne bi ngay def mel ne bi ngay jàng suuratul Maa'ida soo siggee nag wax samiha Allahu liman hamida door a jàll nag soo siggee nag ca rukkoo ba nga jàll sujjóot ñaari sujjóot ña te yàggal ñaari sujjóot ñi mel ne rukkoo ba nga mujjee woon ci bi yàggaay nii boo ko defee am nga ñaari ràkka nga taayu sëlmal nag loolu mooy jullit muuru jant gis nga ko ni muy yàggee ci boo ko defee ni ñu soppee ndax ràkka bu ne am na ñaari taxawaay yu yàgg ak ñaari rukkoo yu yàgg ak ñaari sujjóot yu yàgg loolu na kon faaw day yàgg su weer yi muuroo dañ cee wuute ba xam julli gañ cee julli sunna la wala lu ñu sopp rek la moom nag da koo boole ci sunna yi waaye ñu ëpp ci borom xam-xam yi ñu koy jàppe ngëneel ñoo bëgg rek su weer yi muuroo kenn ku nekk beru di julli sa bopp ñaar ñaar ñaar ñaar gannaaw faati saar wa ci teg rek mu baax na nga daan naafila rek amul yàggal rukkoo ak sujjóot yi lu may rek na nga ko daan yàggale ak na nga ko daan rukkoo ci julli kese rek julli aada rek di takkoo nag def ñaar ràkk def ñaar ràkk boo sëlmalee tàmbaliwaat ba kera weer weer yi muriku wala nga sonn rek bàyyi dañoo bëgg na kenn ku ne beru defal ko bopp waaye taamuñ ñu def ko mbooloo ndegam julli guddi la nag ndax weer yi guddi lay ñëw nag kon dañoo bëgg booy naafila naafila yooyu nga di ko biral julli mbaaw daal moom sàkku yàlla may la ndox rek moo koy waral moo xam bëgg a defar mbay la moo xam bëgg a naan la saa yu yittewoo ndox rek mën nañoo julli julli mbaaw gi sàkku ci yàlla may leen ndox dafa gàttal ni mu ko waxee nag waaye julli mbaaw daal moom moo julli ci nit ñoo bokk ci doon ñaari ràkk dañ leen di biral ak saa yi ci jàng itam ci sopp ñoo ko bokkle li ñu wutee nag mooy jullit xiit moom day am ay kàbbar yooyu wàññi juróom-ñaari kàbbar ci ràkk bi jëkk ak juróom-benn kàbbar ci ràkk bi ñaareel kii nag am ko kii moom kàbbar yi nga xamoon naka jëkk ci julli rek moom lay am buñ jullee ñaar ràkk ba noppi dañoo bëgg ilimaan ci xutba ñaari xutba te allahu akbar yam daa wax ci bu doon xiit mu di ko weccee ak jégglu ci bu dee julli mbaaw gi su jullee julli mbaaw gi ba noppi nag mu wëlbati ko jublu xibla wëlbati làmbaay ga nañ ko jàngi woon ci risaala la nekkoon ci mbagum ndeyjoor dem ci mbagum càmmooñ la nekkoon mbagum càmmooñ ñëw ci mbagum ndeyjoor te du tee cattu làmbaay ga moom cat la féeti woon suuf ba tey féeti suuf cat la féeti woon kaw ba tey féeti kaw su ko defee nag mu taxaw di ñaan moom ilimaan ji mbooloo mi nag ñoom itam wëlbati seen làmbaay tey toog ñoom di ñaan wala boog ñuy wax amin moom muy ñaan mu ilimaan ñoom ñuy wax amin nag bu ñaanee ba àggal rek daal dellu nag te yaakaar yàlla may leen taw bi ñu doon sàkku